Euh, président bu AIS association islamique pour servir le soufisement fan yi weesu euh, am na la nga xamante ne nee ngeen da ngeen ci sóobu 31 juillet atub 2022 euh, gi ñu nekk nii ngeen naan da ngeen bokk ci yooyee élection législative ndax da ngeen jàpp ni parti politique yi doxalatuñ yoon ba tax ngeen bëgg a ci langu politique bi ndax ku dem ci élection moom soo bëgg ci langu politique bi moom. dëgg la jërëjëf Georges dañuy wax bisimilah rahmaani rahiim rek bu ko defee di nuyu ñëpp comme ni ñu ko waxee léegi euh, li nga wax dëgg la AIS bërki démb bi muy def euh, enveloppe di Ramadan te ren nekkoon deuxième édition bi ñu def ko fii ci Dakar ngir séddale ay dons ak i ndimbal ngir contexte bi nga xam ne ñu ngi koy dund ci euh, coronavirus bi jàll xaw ñu crise indi waaye. guerre bi nga xam ne guerre Ukraine bi nga xam ne fan yi commencé na te xaw a changé waat mbir bu baax a baax nga xam ne lu jafe woon fee rek xaw naa yokkaat waaye mhm. ah, yes ci la gis ne kon war naa gën a renforcer waat ndimbal yi mu doon def ak don yi mu doon joxe moo tax ñu ko doon def barki démb alhamdulilahi rabbil alamin euh, jàll na euh, ñi ñu ciblé woon te mooy daara yi nga xam ne ñun amuñu lu du ñoom euh, ak tamit bokk na ci sax orphelinat yi ak lenn ci prisonniers yi ak lenn ci étudiants yi donc alhamdulilahi rabbil alamin li ñu ci war a def def nañ ko ah ci jour boobu nag alhamdulilah ci lañuy defe déclaration bi nga xam ne euh, ci lay AIS wax na incha allah ci la fas yéene dem ci législatif yi naam du du du mooy première intention AIS. di di wax lu mel noonu ndax yële jàll AIS bëggoon na ko yaakaar naa doon na ci wax sax ay wax ba am candidat yu ko doon seet si waaye boobu gisoon na ne euh, looy waa mbir mooy waaj rawatina lu jëm ci wàllu élection war nga ko waaj waajun woo xam ne. Euh, da nga préparé bu baax ci côté yi mu mënta doon donc moo taxoon bale passé ñu ne nañ bàyyi rek xëy na di ci kanam raw li bët incha allah xëy na bii bu ñëwee danañ man a kii bii nag alhamdulilahi rabbil alamin AIS waaj na ko bu baax a baax a baax ndax AIS ñu ko xam ñëpp xam nañ ne mooy kuréel boole tarix yi nekk Sénégal euh, képp murit xaaja tijaan laay ñëpp di bokk di défendre cause bu am solo wala liggéeyal mag ñi bokk ngir sàmm seen héritage ak seen dono ci waxtu woo xam ne bari na ay menaces waxtu wax bari na ay défis yoo xam ne duggoon na Sénégal. mais noo leen ci fas yéenee bokkee da ngeen di demal seeni bopp wala da ngeen di ànd ak parti politique wala ab coalition. ok xam nga euh, dem élection ñaar lay mën a doon comme ni nga ko waxee léegi bu njëkk bi mooy nga nga demal sa bopp nga demal sa bopp bu fekkee ne demal sa bopp mënut a nekk da ngay dugg ci coalition comme ni nga ko waxee léegi euh, xëy na euh, demal suñu bopp xëy na mën nañu wax ne nekkul. ñun ñun ñu ne ñu demal suñu bopp en tant que AIS nga xam ne am liem am léppam demal boppam boobu moom euh, defuñu ko ban moo fi des kon coalition coalition euh, ña damay wax ne sax ñett fi nekk comme ni ñu ko waxee ndax euh, avant ñu def lu mel ni AIS toog na ci biroom waxtaan waxtaan bu baax a baax a baax nga xam ne ñoo ko ñoo ñu gis ne comme demuñu suñu bopp lenn mën a nekk mooy dugg ci coalition coalition nag ñaar fi nekk muy ñett boog ni ma ko waxee muy coalition pouvoir wala coalition opposition muy euh, benn bokk yaakaar wala yow askan ñaar yooyu ñoo fi ñoo fi. am na yeneen de bu leen xeeb moom gëm sa bopp ngi fi. ak bu bees ba nga xamante ne ñu ngi koy taxawal. waaw moom laa bëgg ñoom euh, docteur Abdourahmane Diouf ak ñoom Thierno Bocoum. waaw mhm. benn yeewi askan wi wala benn ñi nga xam ne ay liste indépendant lañ comprendre ko tuddee euh, sa bopp ak Abdourahmane Diouf ak bu. Euh, ànd nawle ànd nawle bu sëriñ boobu. ak troisième fois troisième fois bu ñoom euh, professeur Amsatou Sow Sidibé. effectivement ànd nawle bu sëriñ boobu ànd nawle ànd liggéey yooyu itam ñu ngi ci. léegi nag ñun bu ñu toogee waxtaan discussion di discuter suñu biir waxtaan bu baax a baax dañoo gis ne euh, ñaar yu njëkk yi te mooy benn bokk yaakaar wala yeewi askan wi en tant que profil bi nga xam ne AIS moom la yor te te te yàgg ko incarné di ci wax te mooy sàmm valeur islamique yi. sàmm valeur jikko yi ak suñu baax ak suñu aada ak suñu os cosaan xëy na dëgg la ñi fi nekk muy yow askan loolu la ñu wax moom la ñuy def bu dee bokk yaakaar loolu la ñu la ñuy def waaye euh, bu ñu xoolee ba xool gis nañ ne euh, profil bi nga xam ne ñun moom lañ gën a bëgg dëgg dëgg dëgg nga xam ne moo dëppoog li AIS di ANCAR ak li AIS di euh, gis nañ ne am na yu am waaye am na yoo xam manqué na am na yu am am yoo xam manqué na foofu nag bi toogee waxtaan bu baax a dañoo gis ne kon pour dugg ci benn bokk yaakaar loolu moom euh, mënul nekk waaye ñu xoolaat tamit pour dugg ci yeewu askan wi euh, mënul nekk tamit kasaalika ndax ñii euh, pouvoir lañ nekk ñi ngi xëccoo ñii opposition lañ nekk ñi ngi xëccoo te xëccoo bi xaw naa radical ci diggante ñoom ñaar kenn wérut loolu moom ñëpp xam nañ ne diggante entre pouvoir yeewu benn bokk yaakaar ak yeewu askan wi moom xëccoo bi ñu xëccoo àgg na sax ci violence bu métte mett métte te ñun képp ko xam lislaam xam diine xam tasawuf xam na ñoom lépp luy Euh, radicalisme wala lépp luy violence loolu dañ ko dañ ko dañ koy mettre dañ koy dàq ndax ñoom dañuy incarner lépp loo xam ne parole yu normal lay doon jëf yu normal lay doon loo xam ne dëppoog ma hmm. valeur islamique loolu lay dëppoog moom. léegi fan ngeen euh, war a dugg. waaw kay léegi nag bu ñu xoolee nag mu des yeneen yoo xam ne ñu ngi fi comme ni ñu ko tuddee léegi ñeneen ak ñeneen ñooñu itam ñu ne kon nañ seggaat ci ñooñu xool euh, ñan ñooy ñan ñooy ñi nga xam ne ñoom gën nañoo profil yi ñu am bopp gën naa dëpp profil bi nga xam ne AIS euh, moom moom la am euh, bi ñu càmparee xool ba xool gis ne ci profil yooyu gis nañ ci koo xam ne wax dëgg fa yàlla xëy na fii lañ ko waxee muy <laughs> ni ma ko waxoon léegi bële <laughs> waxoon naa ko rek ci euh, journée doom bi mu jeexee ma ne exclusive bi laa jox mooy AIS dana dem kii waaye waxagut waaye tey incha allah war mën nañ mën nañ ko wax ndax jot na ndax mbir yi daanaka agsi na. daf mel ni juñ nga ko sànq de. juñu euh, nag sax kan la juñu. fa ngeen di dem <laughs> kan la xaw <laughs> ma tudd ko <laughs> tudd. kana précisément. effectivement donc kon bi AES waxtaanee te wax dëgg yàlla ñu waxtaan euh, waxtaan ak ñi nga xam tamit situation fi mu toll actuellement nga xam mbir yi daanaka euh, li si léegi ñu déposé ko léegi léegi lépp hmm. li ñu naan léegi lépp leer macha allah tabaarkalla ci lañ wax na nag wax dëgg yàlla ki ñu xool nga xam ne wóor nañu ne kii moom wax dëgg yàlla dëppoo na ak ñun ci côté bi ñu bëgg. Euh, ak li nga xam ne moom la incarné. Hmm. ak li nga xam ne lislaam moom la bëgg. ak mooy kan mooy kan mooy kan wax lislaam sax mais jikko yi ak aada yi ak ñi nga xam ne euh, bëgg nañ seen réew dëgg-dëgg te xool nañ ne euh, loxo yu set wala boog nit ñu set ñoo xam ne ñu gëm seen bopp lañ ci wàllu liggéey ñu gëm seen bopp lañ. xanaa sëriñ bu ba pour jëm ci kan lay doon dem dem ci lu leer sëriñ bu <laughs> an nawle. maanaam nga xam ne dañoo gëm li ñuy def ci côté bu mënti doon. bi ñu xoolee ba xool na gis nañ ne wax dëgg yàlla euh, wax nga ko euh, mënuñu dépassé mënuñu jéggi koo xam ne ñu ak ñoom ñoo bokk daara ñu ne ñoom bokk muy produit daara la ci la génne euh, moom la incarné te yàggul dara ci terrain bi mu def ci loo xam ne yaakaar naa ñi ma jàmb maanaam ñu ñaan ñaan ñu ñaan ñaayu xare ñaayu xare yi nga xam ne ay politiciens lañ yu mag yu ponkal fekk na leen fañ nekk wala bokk duggale ci seen biir ba am ca loo xam ne wax dëgg yàlla grâce à mhm. euh, maanaam maanaam maanaam farloom mhm. grâce ak dëggoom moo ko may te kooku yaakaar naa mhm. wax d'accord léegi muy une question sëriñ président sëriñ Boub muy ànd nawle ànd liggéey la AIS gis ne mooy ki nga xam ne Euh, profil am dëppoo nag profil bi nga xam ne d'accord maam Cheikh euh, concrètement bu ngeen euh, lan moo tax ngeen war a dem assemblée nationale lan ngeen jàpp ni ñi fa nekkoon waroon nañ ko def te defuñu ko ngeen war a dem yéen itam foofu. waaw xam nga ñun taasun dañ daan toog di yóbbante dañ daan yóbbante yóbbante mooy lan ah askan wi daa ñu ne nañ tànn ñoo xam ne bu nañ leen yóbbu assemblée bu ñu demee liñ bëgg ci suñu réew ci ay loi li bëgg suñu réew ci doxalin liñ bëgg suñu réew ci li nga xam ne moom lañ bëgg réew mi demee ko ñii kat nañ leen yebal yóbbante leen bu ñu demee nañu defal lu mel noonu. yan loi ah, mooy li doxal réew mi. par exemple concretement lan lan ngeen xaaroon ci ñoom. li ñu xaaroon ñoom xam nga jamono bi ñu toll ñëpp xam nañ ne euh, institution yi yi nga xam ne moo ñu moo moo moo réew mi wala boog yi nga xam ne dëgg-dëgg moo tax bu baaxee bu taxawee lépp taxaw te mooy jikko yi euh, yàqu yaa ngi dégg Euh, ni ñu war a doxal réew mi ci yu bare bare bare bari macha allah tabarkal am na euh, duñ ndax ñun duñ nekkuñu ñoo xam ne dañuy dugg ci politique ngir ŋàññi wala xas déedéet waaye lu ci ne lu ci ne hmm. am na lu gën a dëgër ñun bokk na ci seen loi AES ñun lu ñu bëgg mooy euh, sunu mag ñu baax ñi nga xam dañu nekk ci réew mi te am lu ñu def ci réew mi nga xam ne réew mi heure bu demee ba jaaxle ci ñoom la ñuy dellu ëmat yi fi amoon daaw ci marché bi ñëpp gis nañ ne ñi ko réglé duñu ay politiciens duñ corps diplomate duñu ay société civile duñ kenn ñan ñoo wax pour mu wa pour mu dal mooy suñu kilifa diine yu baax yi ñoom ñooy nga xam ne ñooy dernier rempart yi nga xam ne heure bu réew mi demee ba jaaxal nit ñi nag mën nga leen a mën nga leen bañ a soxla nag mën ngaa wax ne ñoom kat seen yoon nekku ci waaye bu ñu demee ba dernier mois ba réew mi nar a tàkk ñëpp dañu ana sëriñ ana sëriñ nañ wax sëriñ soosu nga xam ne ñooñu nag nga xam ne gannaaw yàlla ñoo ñoo ñoo ñoo stabilité réew mi ci seen loxo la nekk hmm. moo xam ko nanga ak koo nangul nit nag bu nekkee jàmman waaye bu yi passé wane na ne bu wér ne suñ xalifa généraux yi wala suñ magi diine yi ñoom ñoo téye réew mi ñooñu nag dañoo gis ne ba léegi amagul yenn ay loi yoo xam ne premièrement seen njàngale xam nga ñëwee réew mu toll na Sénégal ñu dem ba njàngaleem si amul futital njàngaleem Sidi Hadj Malick njàngaleem Serigne Touba ak ñu mel noonu nga xam ne ñoo tax AIS taxaw samp ngir liggéeyal leen te AIS yàgg wax ne nañ dugal seenu njàngale ci biir kii ba pare saytu leen seen seen i seen i seen maanaam seen œuvre euh, nga xam ne seen lépp day delluwaat ci yar nit ñi ci dex leen ñu nekk nit ñoo xam nit ñu nit la ñuy doon loolu ba léegi dañu gis ne amul dañoo war a dugal kon euh, ci école bi njàngale islamique loolu nga bëgg a euh, wax ba njàngale islamique maanaam njàngale ñu baax ñi nga xam ne day nekk programme boo xam ne dañ koy tënk teg ko loo xam ne lu ñuy defar lay doon loo xam ne day dugg ni ñuy jàngale yeneen philosophie ay Karl Marx ak jàngale ñeneen ñeneen yoo xam ne dafa nekk ci philo di ko jàngale ci biir te yooyu ay waxi jàmbur lay doon lañ mën a jëlee programme boo xam ne dañ koy tëgg saytu ko ba mu dëppoo sunuy aada ak sunuy cos ak sunuy culture ñu dugal ko ci biir système bi euh, te loolu buñ ko defee jàpp nañ ne euh, hmm. bokk na ci li nga xam ne dana am Sénégal le meilleur Sénégal boo xam ne incha allah rabbi euh, dëgg la Sénégal am na stade am na lépp waaye dana nekk nit ñi mën koo gën a xoolaat mën koo gën a. à part loolu loolu bokk na ci li nga xam ne AIS bokk na ci li bokk na ci li muy bokk na ci tamit yi nga xam ne ñun danañ dimbali bu ñu demee assemblée pour mën koo xeex fan yi dégg ngeen baax baax yu bare bari yi am ci réew mi. merci yi nga am ci réew mi ak yeneen yeneen yoo xam ne ñu koy wax te yëpp ba léegi xëy na lu yu dëgër yu samp yoo xam ne am na ba léegi amagut loolu tax na askan yu poussé ñu wax homosexualité bi ngay wax non homosexualité am na maanaam am na loi am na loi yoo ne am na fi am na loi fi am yoo xam ne mi ngi koy mi ngi koy aar Hmm. am na ñoo xamante ni euh, ñeneen <laughs> euh, ànd sàmm jikko yi ñoom lu ñu bëgg mooy ñu criminaliser ko yéen euh, nekku leen ci yooyu. non non criminaliser xam nga kenn du fekk lu bon ñu ne nañ ko criminaliser ne déet bu kenn criminaliser. ah kay hmm. Hmm. war nañ ko mën a war nañ ko mën mais criminaliser boobu lan lay jur ak yan yan yan mu nekk ci biir yooyu yaakaar naa am na débat yu bare bare xam judd na ci ba ñenn ñi xam ne jàpp nañu sax criminaliser mbir mi mooy solution dem nañ ba xam ne loolu kat ndekkee bu ñu ko defee tamit tëj leen. Euh, maanaam euh, gis nga kaso yi wax nañu kaso yàqu fa la fa la gën a amee hmm. yàqute fa la gën a amee hmm. da nga gis ñoo xam ne buñ doo da nga gis xam day dugg day dugg kaso commencé drogué hmm. bu génnee drogué kon day dugg kaso génnaa la ngóor jigéen kon yooyu tamit ay ay ay ay yeneen mbir la yoo xam mat naa seetaat nan lañ nan criminaliste bi nan lañ ko war a defee ak nan la war a demee ak nan la war a demee yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne yaakaar naa borom xam yu bari ñu ngi ci doon wax ba nit ñi xaw nañu ubbi seen seen gët waaye dañu jàpp ne li ci jot am baax na ndax euh, damay wax ne Sénégal moom bala ñuy wax criminaliste nit ñi ñoo njëkk taxawal seen bopp ne góor wàllu góor jigéen du fa am ndax koñ boo dem boo dégg ñu ne góor jigéen am nit ñaay génn faj fajal ko seen bopp mm. famille ñoo génn fajal ko seen bopp amul kenn ku ñemee kon a diisal yëf yi waaw amul kenn ku ñemee génn si mbedd sax di ko di ko def mm. donc kon mbir la moo xam ne société bi ñu ngi ko réglé seen bopp ñu ngi ci di ko def donc lan la moo ci nekk nag mooy gën a ñaaxaat nit ñi euh, mooy fexe ba famille ñu yar seen i doom loolu damaa jàpp ne euh, sensibilisation foofu la war a mën a gën a jëm fi mën a gën a jëm mooy nan lañ mën a fexe ba nit ñi yar seen njaboot nit ñi moytundiku fexe ba euh, ñuy sensibilise nit ñi ci rajo yi ak ci télévision yi di wax ak ñoom loolu jàpp naa ne euh, yar boobu moo gën a ëpp solo ndax maanaam daal euh, valeur yi moo leen gën a tax a jóg mais est-ce que yéen sóoraale ngeen risque bi nekk ci soobu ci wàllu politique ndax yéen AIS këru diine yëpp la boole te langu politique bi gis nañ lafane ay waxante lu ñaaw ak lu ne dañ ko fay dégg mais politiciens yi nga xam ne ñoo ñu nekk Sénégal yëpp boo leen doon wàññi kenn xamul ñaata lañ mais ñi ci waxante ñaaw mën nga leen wàññi ñi ci waxante lu ñaaw mën nga leen wàññi mais politique ni ñu ko bëgg a dégg nga xam ne yow xam na <laughs> am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne booy dugg ci a ñëw wax lu wax lu ñaaw attaqué révélation ñu bari loolu lañ jàpp mais loolu du politique. amee ah, politique bokk na ci ah. cest à la boo xamante ni euh, on ne se fait pas de cadeau ah. ku nekk voilà waaye xam nga lu ci ne xekk ma da ci am solo. Hmm. yàlla yonent yi mu daan yónni sax pinc mi leen yónni dafa yàqu lool ay buur nekk ay ceddu nekk fa mhm. yu doy waar yoo xam ne ay dictateur lañu woon ñoo gënoon garaaw ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo jiite ñoom nag ñoo jiite wàllu politique te yonent yooyu nan lañ daan doxale ci ma lañ daan doxale ba tey jii ñoo mujj lépp ñoo ko tey seen loxo kon changement bu ko nit bëggee bëgg dugg ci mbir du càgg na nga ñëw tëll ak i révélation da nga ñëw tëll ak i ak i ŋàññ déedéet loolu ko am xikma du ko def. mais pour changement yooyu tamit pour que mu am. par exemple il faut ngeen am une majorité euh, pour ngeen mën a initier ay loi mu jàll. te ku nekk gis na euh, ñoom Mame Mbaye Niang bi ñu nekkee à l'Assemblée nationale ñoom ñëpp euh, dañ doon défendre les mais ça n'a pas été facile pour ñoom pour ñu mën a initier ay loi yi ngay wax noonu. maa loolu moo ñu jox sax pour ñu mën a mën a jug taxaw ndax lu ñuy wax rek am na ñu fi jaaroon def nañ dara mu réussir wuñ ko kon a noppi loolu boo dee na loo xam mënuñu ko wala jël nañ yu baax nga toll sa jamono xëy na yàlla mën na laa jox chance lu mu joxu doon ñu comme ñu tudd jàpp ni mën ngeen am majorité bi leen di permettre euh, majorité sax beneen affaire la waaye gis nga ah. mbir yu jàgg ay majorité majorité am xam boo xam nga ku mel ne AES bu jógee wala ñeneen jóg bu ñu nee dañuy dem wala maanaam maanaam élection législative yi mm. am na ñoo xam dañuy dégg ne ah, kii de day kii de lan am majorité mënut a am dara te ensemble ku fa am majorité mënu mënu mënu faa jiite dara. Hmm. mais du caaga ne majorité moo ñu tax a jug naam bu ñu ko amee baax na waaye dafa am loo xam ne influence dafa am loo xam ne képp ku képp koo xam ne ngaa toog di seetaan nga te nga war a changé boo toogee di seetaan maanaam euh, dana àtte sa kaw dana doxal sa kaw doxal yoo xam ne dëpp bokkut ak la nga bëgg mieux vaut nag nga jug. donte benn benn benn benn benn benn siège nga am ci assemblée nationale bu ko xeeb. mais loolu du changer dara de toutes les façons. de daa koy man changement influence laa la bëgg wax xam nga changement ak influence bokkul ndax man bu ma toogee assemblée nationale AES au moins même bu ma mënta changer danaa porter voix. ñi nga xam ne bëgg nañoo wax seen i soxla. mais yéen a ngi koy def chaque jour conférence de presse yi rajo yi télé yéen a ngi koy def. bokkut waaye xam nga assemblée fa lañu conférence presse wax sànni. bokku dafa ñuy tëgg luwaay fa ñuy tëgg luwaay boo fa demee ah. fexe ba boo amee majorité baax na boo ko am nga fexe ba nañ tëgg luwaay ak nañ koy defee nga nga nekk ci biir lépp loo xam ne jaaru ci yoon wala na xam ne naka sudu noonu nga fexe ba leeral ko pour gindi askan wi bu fekkee ne xëy na yàlla mën naa def sax la nga doon la nga ndax bari na fi ñoo xam ne nekkuñu majorité mm-hmm. te porte nañ ay ay ay ay ay loi yoo xam ne jàll na assemblée nationale ñoo xam ne nekkuñu ci kaamu suuf de waaw d'accord bëri waay am na bëri waay am na léegi yéen donc nag kon loolu bokk na ci li nga xam ne tax na war AS waaye AS jugul rek ngir ne daa war dem gagné jugul waa waaye day def loo xam devoir lam léegi léegi yéen yéen a ngi ci biir réew mi yëpp ci këru dina yëpp muy Kaolack Ndiassane euh, Touba Tivaouane Louga ci këru dina yëpp euh, donc vous êtes représentatif en tout cas ni ngeen implanté wu ci biir réew mi mm. yéen a ngi ci biir réew mi yëpp mm. sëñ Mboup la mu gañeegum moo di Kaolack euh, kuy jiitu kuy jiitu da ngeen koy jiital wala. Ah, ah, mooy jiitu sëriñ sëriñ Gueye wax dëgg yàlla mooy jiitu ndax ndax mooy président mooy mooy def lépp lu mën noonu waaye Kaolack tamit bu ñu ko xeeb Kaolack xam ngeen ni mu dem ni mu mel ci Sénégal xam ne Ile nga xam ne sa Kaolack daanaka mën nañu wax mooy poumon nga xam ne daanaka économie réew lu bare bare bari ak euh, kii politique bi tamit na mu fa mel. kàngam ñëw fi ñu effectivement kooku kon ku ko gañee na wax dëgg yàlla jàmbaar nga ku mën a dugg foofu ak politiciens nga fa nekkoon yëpp nga ñëw nekk doomu daara nekk produit dara nekk euh, noo xam ne opérateur mhm. économique nekk nekk koo xam ne da ngay yaxantu xëy suba sa première élection nga gañe ko kooku wax dëgg yàlla yaakaar naa bu duggee Kajoor dugg Bawol dugg njambur dugg feneen feneen lam am incha allah Kaolack mën naa am foofu lu ko ëpp ndax ñu nekk Kaolack ndax ndax da ngeen jàpp dangeen ngeen bëgg a xañ ñeneen yi yeneen coalition yi yeneen parti yi la ñu am ci këru diine yi déedéet mun déedéet ci ay voix je veux dire déedéet déedéet nekk ndax AES tamit du jàgg ne ñëpp ci bokk ndax AES euh, concept la boo xam ne dafa am lu muy jub di defaan la muy défendre rek mooy hmm. magi magi réew mi ñu respecte leen jox leen cër te gis nañ ñëpp gis nañ ne xas yi ak ŋàññ yi nga xam ne bu dégg bëccëg ñu ko def hmm. mag ñi ñun dëkk bi 2015 ba léegi ñu ci wax waaye amu ci benn waa amu daan loolu war naa a tax nit ñi sax ñooñu poussé mais am na ay daan ah, hmm. euh, ku xas mag ñi buñ lay identifié dañ lay yóbbu kasu ah, mais mais waaw mais bëriwut bëriwut wax dëgg yàlla xëy na gis nañ fi ñoo xam ne dañuy dañ ndax ñun lañ doon lañ doon lañ doon wax daan ko alerte di leen wax ne nañ moytu mag ñi xam ñi xas ñi ngi leen gàññi tey ba ci bañ ci deful lañ ci war a def lépp dëgg dëgg dëgg ñooñu dañuy mënu ko bu daal di dal ci kaw état dal ci seen kaw xëy na gis nañ ñoo xam ne ñu ngi dal ci état ñu jàpp leen wala tëj leen xeet yu mel noonu waaye en tout cas mhm. AIS euh, demal sa bopp da ngay demal def politique politicien foofu déedéet ko politique politicien moom xalaat jërëjëf ndax xam ne ñu ngi fi nekk di def politique te kenn xasule kenn ngaañu xasuñ ngeen saa jërëjëf maam Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba euh, waxtaan nuyu ak ziar soxna Naata Mbaye ak ñamu àndal ca TFM ñu yendook jàmm